ndogal di soxal tëju baar yi te kilifa yi jël ko niki fan yi ñu wees ngir rek xeex jàngoro coronavirus bi wéy di yokk ci réew mi neexul benn yoon kuréel bi ñu duppee Sinabrals ëmb rek ñiy liggéey ci baar restaurant yi fii ci senegal umpalewu leen ni que toog na ñetti weer nu tëj nu ci première euh, euh, nu koy waxee ci première décision au chef de l'État yi ñu ànd ci toog ñetti weer liggéey ñu Nous dédommagé ah, financement parce que nous avait demandé de faire un financement mon retour donc aujourd'hui comme nous l'avons fait, l'autorité des lois encore demandé demander la fermeture des bars parce que nous ngi wax bars, mais nous on est pratiquement des bars restaurants on sert aussi bien à manger que de l'alcool donc vous avez l'avez bien constaté vous avez vu il y a des gens qui sont là pour manger donc on, on voit mal pourquoi aujourd'hui, soit c'est de la stigmatisation, soit c'est du n'importe quoi. Parce que mënuñoo di jaay lek, di jaay nan. parce que restauration dafa andak boissons boisson mooy boisson alcoolisée mooy boisson sucrées. Donc boisson sucrée donc pas ànd donc euh, tëj nous, vraiment c'est une chose qu'on qu'on a déploré moo taxit ba ba léegi tooguñu tëj bi arrangé wul kenn parce que ci gëna metti moy nos employés ñi nga xamanteni salaire bi rek lañu ñu dépendre pour dundu ñi nga xamanteni dañu joggé ci région yi ñëw fi loué yaakaar ci salaire boobu pour dundu yaakaar ci salaire boobu pour dundal sen dimbal sen papa di sen wajuri yi ci salaire bobu pour fayal sen rak yi jang yaakaar ci salaire bobu pour fay sen nek yaakaar ci salaire bobu

Parce que quoi euh, Quand on parle de bar fille au Sénégal, je dis qu'il n'y en a pas. Parce que bar, c'est fi nga xam ni foo la ñuy jaayee naan Et fille, c'est rare nga gis fi nga xam ne dañuy jaay naan kese dañuy relier restaurant en plus bar. Quand nga xam client bu soxla en même temps il est obligé ou bien elle est obligée bu nan voilà donc si euh, jii bu ñu ko bu ñu ko tëjee dina métti si ñi parce qu'ils seront un peu compliqués de pouvoir payer leur euh, le le le leurs employés et puis aussi si toutefois le lieu est loué et c'est compliqué aussi de, de, payer aussi le lieu. Et puis se pouvoir s'entretenir eux-mêmes aussi, c'est un peu catastrophique vraiment, c'est compliqué. ci seeni kàddu nag il jafe yu metti lañu nar a jànkonteel bu fekkee ni ndogal li ni mel dañ ko naam ba tey noppeeguñu di yëg tolof-tolof yi leen topp ci tëjub ñetti weer yi wees metti woon lool te dafa metti ba léegi ndax ay bor mi ngi ci topp ba léegi ndax euh, suñu congélateur yi dafa feesoon dell ak lekk dell ak dund noonu la lu bëri yàqoo pendant nga toog trois mois exercé woo ba pare courant bi di daw parce que il fallait nga continuer conserver dund boobu parce que les de ne sont pas Le courant est venu cher. Il y a 0 recette. 0 recette parce que les gens Le jour, au minimum, je faisais 300 000 francs. Mais depuis que je me suis des fois, je me retrouve avec 100 000 francs. Je te jure, 100 hein, 000 francs. 200 000 francs, parce que Et puis maintenant, je fais ma plaie. Durant trois mois, je me suis dit que je les employés.

Regardez, parce que nous, on n'est pas source de, Covid. Source de Covid, parce que nous, on vous a fait laver la main, je crois. Parce que même Manmi, qui, qui suis venu d'ailleurs, le vigile m'a fait laver la main. Hein? Le, gel à la porte, il y a tout à la porte. Donc, ce n'est pas source de Covid. Et nous, c'est parce que nous, sommes euh, syndicats, on veille à ça. On veille à ça parce que nous, nous, nous, beaucoup de problèmes avec euh, faire Hein? Donc je ne vois mal euh, pourquoi nous nous buntu khatal pour bar. Euh, j'ai l'habitude de venir manger ici dans ce restaurant. Déjà, euh, c'est un, restaurant qui vraiment, qui a toutes les normes, qui est vraiment propre. Vous voyez Alors j'ai l'habitude de venir manger ici le matin comme le soir. Voilà. À l'entrée, il y a le, truc pour se laver les mains, il y a le, gel, il y a tout. Et aussi ici, il y a la distanciation. Voilà, chacun se, limite à son rang et la nourriture est saine et c'est des produits frais. Nous, nous nous munti demee suñu réew la premier euh, endroit où nga avons da ngay qui nit restaurant euh, baril. donc nous, avons protéger suñu clients en même temps nous protéger clients. en même temps aussi nous mun protéger suñu en tant que tel voilà raison pour laquelle on est obligé de respecter les mesures barrières quoi qu'il puisse arriver bu doon lekk bi client bu là, la a suñu menu légui. façon plat y a plein def plat africain plat européen ay barbecue lépp la ñuy def donc de ce fait étranger yi sax ñoo ëpp lu ñu ñëw et puis, la recevoir fii table bi ma toog la recevoir Melinda Gates jabaru Bill Gates mu ñëw fii fondation am ñoo fi indi ñoo ko fi indi te xam nga personnalité bu toll noonu fi muy dem dañ koy seetaat. lenn dong nak lañu ñu nekk di nakarlu mudi ñak yamale gis ci ndogal biñu lal ngir tëj seen palaasu liggéeyukaay yi. Euh, un établissement qui ouvre jusqu'à 5 heures du matin nekkatoo restaurant nekkatoo restaurant si c'est pour parler de de restaurant kese donc pourquoi accepter ñani di liggéey bañ bañ ñu ñu liggéey la plupart ñi dal liggéey ay nasaraan lañu ay étranger lañu ñu gis ci suñu bop parce que dem nañ ci dem nañ nañ ci euh, gouverneur bu ñu ci gouverneur en faisant un briefing on s'est arrêté ci un établissement on a pris un verre ñi di l'alcool, alcool naan alcool ñi di naan autre chose autre chose mais à 17 h on nous a servi de l'alcool et c'est pas c'était pas un établissement sénégalais et on a daf ñu metti daf ñu metti avons gis ku am corona ñoy la ci restaurant lu ko amé toujours ci dëj la wala ci marché

képp kaa xamante ne expatrié nga yaa ubbi mais ñun yaa xamante ne ay sénégalais booltee lañu suñ bu ñu liggéeyee suñu xaalis fii lay des si dëkk bi amee xaalis fii lañ koy investiraat ci biir dëkk bi bu ñu amee xaalis suñuy mbokk lañ koy séddool ñu tëj ñu ça écœure lii le nag bokk na ci li waral ñu amalub doxub nemmeeku ngir sumb waxtaan ak kilifa yi

mais quand ñu demee gis commissaire euh, sécurité urbaine waxtaan ak mom il a tendre avec nous mu wax ni comme par restaurant nous mais dañu jël ay distance les mesures quoi nécessaires ñu ay alcogel tout ça client bu ñëw aussi nous xam nañu leen di ñuy toogee. dem nañ gis euh, préfet dem nañ gis gouverneur dem nañ gis commissaire central et même nos commissaires euh, d'arrondissement et heureusement qu'on est en parler pour parler vraiment nous ngi ci gis ay commencé gis ay quand même euh, amélioration mais ba légui leeragul suñu bopp parce que ba légui ñun lu ñu saxaloon mooy ni par rapport ak suñu discussion ak autorités autorité, autorités nous nu ñu nous nous nu ñu jëlee communiqués. Euh, décret wala arrêté wala communiqué tej bari té nañ arrêté wala communiqué wala circulaire n'importe quoi Nous mu leer ci bopp que suñu structure yi mun parce que actuellement il y a un jugement personnel parce que dañuy dem ci kii ñu neenu nous ñu dem ci keneen keneen kii ku nekk ak sa ni nga koy gisee daal te vraiment de sonn nañu. tey nag Sinabral di ñu xamal ni dana wéyal waxtaan yi ak kilifa yi ngànk bi leen dogal lek noppi ngir tëj seen bërëbu liggéeyukaay yi mu ngi xamal ni sax dootu ci tay yi te du ci noppi ba kar rek ñu di leen may ñu wéyal seen liggéey nu mu gën a mucc ayib Thank you.